Altyazı M.K. daa leen ko wax di yàgg naa ngeen am da nga am taw fexe la ci leen ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi nekk ci xas yi xaas la am xaas am ne tawee ba ñëpp war nañ cee te ngeen dund ci fàggu laa nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma ngeen am waaw incha kon bala ngeen di teewlu rek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 ak diggante ñi nga xamee ne ay faasiqiina yu góor lañ ay faasiqaat yu jigéen ak munaafiqiina yu góor yi ak munaafiqaat yu jigéen yi ci saw bug julli goog sama ci ngay doxee sama diggante ak ñoom tàggale ma ak ñoom te ci saw bug julli googee ci nga may génnee ci lépp loo xamee ne neen la waaw loo xam ne rek waaw nekku dëgg loolu mooy baatil kasib nag mooy fen kasib mooy fen woo xamee ne cëslaay ji sax mën naa baax waaw ah, waaye fekk dafa am loo yok rek léeg-léeg ñu gis nit dala nettalil dara fekk xisi ba dam ko nettalee noonu la waaye am na lu mu ci yokk kooku mooy kasib soor nag mooy wax joo xam ne nen rek la lépp da nga ko fekk ci xadis mu wax yu bon la waxi neen iftira yi nag mooy duut moy wax joo xam ne moom bokk rek kasib kasib mën naa am cëslaay waaye iftira yi nag mooy wax joo xam ne moom amul cëslaay fam béye ko baaxut fam jëm baaxut moom nga diggaal xuraan ne am yaquluna naftara ala llahi kasiban ndax da ngeen di waxal yàlla loo xamee ne iftara la muy duut mooy xeetu duut gi gën a bon mooy duutal yàlla naan dafa am doom wala dafa nangam te wax jooju ci laay ji baaxut fa mu jëm baaxut. ak tajru muy dëgg dëgg lu bokk nuuru ci bàkkaar ak naqdil xanx di mooy fecci kóllëre kóllëre jaam bi digganteem ak boromam ci xaalamul arwa bam dajale mboolum rooyi na leen ala subiro bi comme xaaloo balaa ñëpp dañoo waxoon bala bu ñu wàcc ci suuf yow la ñuy jaamu kon kenn ku nekk war naa fexe matal kóllëre googu diggante sa borom de moo mu ñaan na ko soo bugg salaatu googee ci nga may musal ci lépp luy neen ak fen ak waxi neen ak duut wax joo xamee ne fa mu bay ko baaxut fa jëm baaxut ak dëgër dëgër lu ba pota muy nuuru ci bàkkaar ak fe ci kóllëre yàlla na nga nangu ñaan amin yaa rabbal alamin yàlla mi borom bi def mu ne allah ba sunu borom sali yàlla nga sax dàkk julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi moolana tey sunu kilifa muhammadin tura mooy muhammad wasalim yàlla na nga salmal alayhi ci moom wa ala ak kaw ñoñ na wa sax bi asahabaam yëpp waan ni yàlla ma wattu wa tawalla nii te yàlla nag ma féetoo yàlla nag ma mbéng bokkun te yàlla na a nekkal lii ñeel ma wala takkil nii te yàlla bul ma bàyyi ilaa nafsi man ak sama jëmi bopp rek tarfata ayni lu toll nii xafa xipire ci bët yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga sax dàkk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nga sëlmal ci moom sëlmal ci waa këram ak saxaabaam ya maa ngi lay ñaan waxtu wu yàlla nag may sàmmal sa bopp yàlla yàlla bul ma bàyyi di ma seetaan mukk lu toll ni tarfatal ayni yàlla kum seetaan rek bàyyi la ak sa coobare bopp ngay doxee sa sa gis-gisu bopp rek kooku da nga alaku rek yàlla ñu ci yàlla musal ah moom la waxoon ci sidi bi ne falaa tekkil ne ila nafsi fa an lika kun mujibani ay suma adoo ko yàllaaw yàlla bu la seetaanee wallaahi boo ko ñaanee sax du la nangu te da nga alaku mu ne nag yàlla bul ma bàyyi di ma seetaan mukk ah lu toll ni tarfatul ayni nag bu ne nag may sàmmal sa bopp di ma féetee ah waxtu ne nga di ma xettale di ma dimbale ci lépp lu may bëgg allahuma yow sunu borom sali yàlla na nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey na nga salmal ci moom wax fi ni yàlla na ma fegele bi jaay ci dara jaam ruux yatamaa yeesoo naf ci sama jëmi bopp wa fii awlaadi wala samay doom wa fii imaani wala sama imaan wa fii islaami wala samay islaam wa fii insaani wala sama insaan wa sox yàlla na nga màngi ilee jëmee ci man bi jaay ci dara jaay yonente bi sallallahu alayhi wa maa yu si dinu loo xamee ne dana ma dolli sukuran ak cant laka jëm ci yow ajiran moo xam fii ci lu teew te muy adduna wa ajiran ak aji diggu ja te muy ëllëg na nga nangu bi jaay yi ci daraja darajaam jëdaa ji màgg sama julli xaas yi gii waxtu bi yàlla na nga bindal lii ñaan ma biyaa ci sawbu julli googee bara atan ak dañ ba set wicc min kuli saan min ci bépp bàkkaar waccal ne yàlla nag ma def yow yàlla xendaka fa yow max boolan ma doon ku ñuy nangul mardiyan doon ku ñu gërëm fa ku ñu sopp fa yow ma koo dan doon koo xamee a koy wommat jëmee nga ko fa yow bi luti ànd kook ñeewantu wa tay siire ak jàppandiga amin yàlla na nga nangu ñaan wa tay siire ak jàppandal ga amin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabal xaalamin yow yàlla mu di borom mi ne fi des mu ne yow yàlla maa ngi dagaan ci yow yàlla na nga sax dàkk di julli yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy Muhammad yàlla na nga salmal ci moom yàlla na ma fegalee ci daraja moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam man sëñ Tuubaa lépp lu may naqari ci sama jëmmi bopp na ko fegal ci barke bi yonent bi lépp loo xamee ne ah daf may naqari ci samay doom yi bopp fegal ma ko ci barkeb yonent bi lépp loo xamee ne daf may naqari sama imaan muy sama gëm yàlla fegal ma ko ci barkeb yonent bi lépp loo xamee ne dafa may naqari sama islam muy pratiquer ne pratiquer l'islam di wéy santaane yàlla yi lépp lu ma ci nar a naqari rek fegal ma ko lépp loo xam ne dafa nekk sama tasawuf sama insaan te mooy rafetal sama digganteeg sama borom def te moom rek a tax yàlla lépp lu ko nar a yàq rek maa ngi lay ñaan nga fegal ma ko de lépp lu mu fi rek na ma ko fegal waaye yàlla na nga maa ngi jëmee ci man ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xamee ne dana ma dolli sant di jëmee ci yow moo xam ci àdduna ak àlaxira ne rek nag ma yomatal di jëmee ci man loo xam ne heure bu ne dama lay sant yàlla nag ma nangul ci daraja yonent bu màgg bi sama julli gii muy xësidi gii ma ko nangul yow yàlla waaye nag ma defa yow ci saw bug salaatu gi nag ma bindal ma doon ku ñu ku set wicc ci bépp bàkkaar nga xam ne dootuma taqati benn bàkkaar dootuma amatu benn bàkkaar waaye yàlla nag ma def fa yow ma doon koo xam ne sama mbir yëpp da nga koo nangu ba noppi te gërëm ko doon koo xam ne yaa ma soppal sa bopp doon koo xam ne danga may womat jëmee ma ci yow ànd koog di ma ñeewantu ah, a noppi di ma defal taysir di ma jàppandal lépp lu may bëgg ma ko am ca sansa yàlla na nga nangu ñaan yow yàlla bi nga xam ne yaay borom bindee fi de allahumma yow sunu borom sëli yàlla nga sax daa ko jure ala sayyidina ci kaw sunu sang bi o mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xam ne tuallimu ni danga ma xamalee bi yaa ci sababu salaatu googee maa tuxi boo lépp loo xam ne danga ko bëggloo ma ko o maa tarda ak loo xam ne danga ko gërëm loo li ñal ma wa tudxilu ni maa ngi ne yàlla ma taabal bi yaa ci sababu salaatu goog bii ci loolu nga xam ne fii ci loolu nga xam ne danga ma koo bëggloo te gërëm loo ma ko wa tuqimu nii yàlla nga ma saxal dàkk bi yaa ci sababu julli googu fii ci biir loolee nga xam ne moom ku ma bëgg loo te gërëm loo ma ko ilaa wafaati ba keroog may faatu wasalam yàlla nga salmal alay ci yonente bi wa ala ali ak ñooña wasama bi ak saxaabaam ya salaaman salmal goo xam ne yu laa si mu nii danga ma taqalee bi ci sababug salmal googee fii daaka sa ngërëm alakbara la gën a màgg wa tufaariqu ne yàlla nag ma teqalee bi ci sababug salmal googee a naqda muy firi kóllëre wal xuróora ak waru wa kulla darar ak bépp lor de yàlla yàlla nga sax daa ko di julli bi nga xam mooy sunu sang di sunu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli googee lépp loo xam ne danga ma ko bëggloo waaw te gërëm loo ma ko damay bàbbeeku daal di ci loolee sax ca rek yàlla nag ma tàbbale yàlla nag ma dugal ci sababu salaatu googee ci biir loolee nga xam ne yaa ma ko bëggloo te gërëm loo ma ko su ko defee ma sax fa rek ah bakki rek may faatu dootu du ma génn ci loo bëgg mukk te gërëm ko loo rek ci lay sax yàlla nga salmal ci yonent bi julli ci waa këram salmal ci ñoom soo julli ci saxaaba mi salmal ci ñoom salmal goo xamee ne ci soobu salmal googee ci nga may taqalee heure bu ne ma nekk rek ci li nga gërëm waaw ah, li nga gërëm rek muy sa ngërëm li gën a màgg heure bu ne rek moom lay taxoo di ko def waaw ah, heure bu ne rek ma taxoo sa ngërëm li gën a màgg am sa ngërëm li gën a màgg waaye yàlla nag ma teexalee ci barkeb salaatu googu linga nga xam ne mooy fecc kóllëre ak waru lépp loo xam ne xeeti waru la ak rek lépp luy lore wala loo xam ne bu ci jàmbi nekkee mën naa waratu du ko yëg loo xam ne bu ci jàmbi nekkee mën naa fekki ko léegi dox digganteem ak boromam yëpp maa ngi la ñaan sabu salaatu goog nag ma ci musalee teqalee ma sama digganteeg loola de waaw ah, lépp loo xam ne fekki ko lore wala ak waru wala ak lor de musal ma ci de allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tu kafiru da nga kafaara tukafiru da danga fare tukafiru da nga fare bi ci sababu julli googu xan ni mawlis ma kullama lépp loo xam ne xaaliya gàll sama kaw minal xuququ minal xuququ ci ay xaq alati xaq yi nga xam ne bay nii nekk na sama diggante wa bay naka waaw ak nekk sa diggante de saddaxatan moo tax mu ne saddaxatan mu doon ab sarax rek min ko mu bàyyi ko fa yow àlla ya nga defal ma ko yaa karim yow yàlla mu di aji tedd ji yaa xani yow mi nga xam ne yaay aji doylu ji yàlla nga salmal ali ci kaw yonente bi wax ala ak kaw ñoñ ña wa saxbi ak saxaabaam yëpp salaaman salmal goo xamee ne tataxamalu da nga yenoo bii ci sababu salmal googu xani jëlee ci man kullama alee lépp loo xamee ne dama koo gàlloon aaw ci sama kaw li xalqiqa mu dox sama diggante muy ay xaq yoo xamee ne yëpp dama ko gàlloon ñeel mbindeef yi kullama lépp loo xamee ne alee dama ko gàlloon sama kaw li xalqiqa ñeel say mbindeef xaq yi ma amal yi yëpp mboolem say mbindeef xaq yi ma leen yoroon yëpp na nga ko jëlee ci man gàll ko na nga ko ci sa tab gi nga tab rek wa karamika ak sa waaw yaa waasi'un yow yàlla mi nga xamee yaay aji yaatu ji de yow yàlla maa ngi leen yàlla na nga julli sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang de sunu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xamee ne ci soobu julli googee lépp loo xamee ne xàq la boo xamee ne dafa doxoon sama digganteeg yow waaw ci ma war la ko jaamu te jaamu la mukk maa ngi lay ñaan xàq yooyu yëpp na nga ko jëlee ci man far ko mu dindee ko ci man ba set wicc ci soobu salaatu googe kon julli goo xamee ne ci sababu julli googu ci ngay faree ci man mu dindiku ci man lépp loo xamee ne dafa gàlloon sama kaw ci ay xaq te mooy xaq yi nga ne moo doxoon sama diggante man sëñ Tuubaa ak yow yàlla su ko defee rek na doon ak sarax loo xamee ne aaw day bàyyi ko ci yow nga defal ma ko de yow mi nga xam ne yaay ko tedd ki balaa nit ñaan sax nga defal ko yow yaay aju doylu ju ba soxlaaloo kenn mën a taxawee boppam yàlla na nga sëlmal ci kaw yonente bi julli ci waa këram sëlmal ca ñoom julli ci saxaabaam yi sëlmal ci ñoom sëlmal goo xamee ne lépp loo xamee ne ay xaq la yoo xamee ne dama ko gàlloon mu dox sama digganteeg mbindeef yëpp ci nga koy jëlee ci man nga xam ne yaa koy yenu man dootuma yenu benn xaq mbindeef na def rek ci sa tab gi nga tab te mën a may ak tedd nga gi nga tedd ba noppi te mën a terale yow mi nga xamee ne ko yaatu nga kon nag xaj naa ci waaw sa yaatu googu ak sa tabe googu ak sa mën a terale googu man nga maa terale lii mboolem xaq boo xam ne dox na sama digganteeg mbindeef yëpp nga jël ko de waaw coy kenn mostu gi salaat yi lamb yow sunu yàlla nga julli ala sayidina sunu sang bi tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad wasallim yàlla na nga sëlmal ca moom salaatan julli goo xamee ne wa salaaman ak sëlmal goo xamee ne tataqabalu da nga nangoo bihima ci sababug julli googu ak sëlmal googu jamiha axmaali mboolim samay jëf wa tujaawisi te da nga jéllale bihima ci sababug julli googu ak sëlmal googu xan nii mu walis ma jamiha saqaa'iri mboolim samay bàkkaar yu ndaw yi wa kabaa'iri ak sama bàkkaar yu mag yi wasalal yi ak samay rëcc-rëcc wasoo yi aadaabi ak sama ñaawuk teggin wasoo yi axlaaq yi ak sama ñaawuk jukko watam xoo da nga faree bi ximaa ci sababu julli googu ak sëlmal googu xoyoo bi sama ayib yëpp amin yàlla nga nangu ñaan bi jaay yi a dara jaam jëre moom yonent bi sallallahu alayhi a ci dara jaam ju màgg ja de yàlla maa ngi dagaan teew yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa trop mooy Muhammad yàlla nga sëlmal ca moom julli ak sëlmal goo xamee ne ci saw julli googu ak sëlmal googee mboolem samay jëf yi may jëf yëpp ci nga koy nangu waaye ci sababu julli googu ak sëlmal googee ci ngay jéllalee mboolem bàkkaar yu ndaw yu ma mos a def ak yu mag yëpp ak sama rëcc rëcc wala ma ñàkk teggin sama digganteeg yow am ñaaw teggin wala sama jukko waaw am lu ci ñaaw waaw ci sababu salaatu googu ci nga koy jëlale ba dooma toppee bàkkaar yu ndaw yi ak yu mag yi ak samay rëcc rëcc yu may def léeg-léeg di tarxees ak sama ñaaw teggin ak sama ñaaw jukko yëpp waaye ci sababu salaatu wasalaam googu ci ngay faree mboolem ayib boo xamee ne mi ngi ci man Sëñ Tuubaa ay sikk ka wiis lépp ci nga koy dindi bam set wécc amiin yàlla nga dango ñaan bi jaay ci darajaam ju màgg sallallahu alayhi wa sallam de allahumma yow sunu borom solo yàlla nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli wa salaaman ak salmal goo xam ne te xoolu da nga doxee bii maa ci sababu julli googu ak salmal googee bay nii sama diggante wa bay na kulli baatilin ak diggante lépp luy neen taraktuhu loolu bàyyi woon naa ko li wax ci ka ta bàyyi gi dara lal ko lu rut ngir sa jëmm ji alkarim ji daa ji teet na wataat su xuni waaye danga ma wërsëgale bii maa ci sababu salaatu wa salaam googu mu laa samata siiratihi ma taqoog li nga xamee ne moo di aw li nga xamee ne moo di aw doxalam moo di li yàlla bëgg moo di mooy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan doxee waaw siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ne mu laa sama de siirati ma taxaw su ko defee nag doxinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rafetu jukko yi nekkoon ci moom min yow mi li ko tàmbalee ci bis xaasaa bi ilaa mamaati ba rek sama faatu bi jaax yi ci dara jaam ji alasim njëriñ ji màgg de yàlla maa ngi dagaan yàlla nga sax dàkkari julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi waaw di sunu kilifa trop mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli goog ak ci ngay doxee sama diggante ak lépp luy neen a ba ma sori ko mu sori ma lépp loo xam ne neen la ta bàyyi woon naa ko te ba ma koy bàyyi ngir sa jëmu ju teet ji rek taxoon kon nag ci sababu julli googu ci ngay doxee sama diggante musal ma ci yàlla nag ma wërsëgalee ci sababu julli googu salaatu wa salaam googe ma taqoog na yonent bi sallallahu alayhi a daan doxee aaw ci doxin yu rafetoo ak rafetuk jukko yu yom làmboo woon li ko tàmbale ci bis bii na nga ma koy may ba keroog may faatu lépp nag ma ko defal ci darja yonent bu màgg bi de sallallahu alayhi wasallam allahumma yow sunu borom salli yàlla ala sayidna ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne taqadi da nga fayee bihaa ci sababu julli googa an nii aaw jëlee ci man kulla xaqin bépp xaq wa kulla daynin ak bépp bor aaw lakka boob ñeel na la aliya aliya boob waroon na ma aaw lakka ñeel la nga fay ko re aaw aw li xayrika wala keneen ku bokk tak yow fi daaray nii aduna ak alaxira amin yàlla nga nango ñaan yaa rabal alamin yow yàlla mi borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa trop mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli googe bépp xaq boo xam ne gàlloon naa ko ah sama digganteeg yow wala sax ku bokkut ak yow muy bindee ci loolu mooy awli xëy rek fii daaree ni mu ne bépp xaq boo xamee ne dox na sama diggante yow yàlla wala mu dox sama digganteeg li nga xam ne moo di bindee fii ci sababu salaat googu ci ngay fayee xaq yëpp ba dootuma yoral kenn xaq moo tamit salaatun julli goo xamee ne taqad yi da nga fayee biyaa ci sababu julli googu xam ni a ci man kulla xaqin bépp xaq wa kulla daynin ak bépp bor laka boob ñeel na la xan waroon ma sama digganteeg yow waaw aw li xayrika wala ñeel keneen ku bokkut ak yow mbindeef yëpp daal di dugg fii daaree ne mu ne ëdd na kalaaxer nag amin yàlla nga nango ñaan yaar baal min yow yàlla mi borom bindeefi kon nag daal maam sabu salaatu googu yow yàlla bépp bor boo xamee ne ah dafa doxoon sama diggante wala xaq bu dox sama diggante yow wala bor boo xamee dafa doxoon sama diggante bindeef yi wala xaq yoo xam ne dafa doxoon sama diggante bindeef yi lépp ci sababu salaatu salaam googu yàlla ci ngay fayee lep de yàlla na ko yàlla defal ñu nit de. mu ne ko yàlla na ko nag yow mi borom bindeef yi allahumma yow sunu borom sali yàlla na ko julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tak fi nii danga ma fegalee biyaa ci sababu julli googee xumumu dunya njàqare aduna yi wala xarata ak alaxara aaw waxu moomooma ak seeni njaari njàqare yi yëpp buñ na xumoom njàqare rek ci aduna lay doon mooy itte yu taxaw fajog yacaaju yëpp kooku muy xumoon waaye ba tey njàqare rek lay tekki kon salaatan julli goo xamee ni tak fi ni dang ma fegaleen biyaa ci sababu julli googu xumooma dunya muy itte aduna wala xarata ak alaxara waxu moomu a ak seeni njàqare seen ñaari njàqare muy njàqare aduna ak alaxara wasalim yàlla na nga sëlmaloo lii ci yonente bi wala kaw ñoon ñëw san ak saxaabaam ya waaye de xil ni yàlla nag ma tàbbal al yawma tey jii bi jaay yi ci darja yonente ba fii bi ma bokk ci kuréelam ba di saxaaba ya de yàlla yàlla nga sox dàkk du julli yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli googee lépp loo xam ne hittee adduna la moo xam ne hitte yoo xam ne day tëx a faju yëpp nag ma ko fegal waaw ak hittee alaxira yi yëpp mboolem hitte yoo xam ne day tëx a faju ci adduna wala alaxira waaw ci sababu salaat ci nga ma ci musale waaye mboolem jàqar yi nekk ci adduna ak alaxira di muur jàmm bi moom indil ko ay fitna ak tolof tolof ci idnaam ak ëllëg yomal ci sababu salaat googu ci nga ma ci musalee fegal ma ko yàlla na nga sëlmal ci kaw yonent bi julli ci waa këram sëlmal ci ñoom ak saxaaba mi sëlmal ci ñoom te tey jii damaa bëgg ci darja yonent bi nga bool ma ci kuréel ba saxaaba yi ma bokk ci biir kuréel ba allahumma yusuf borom tul yàlla nga julli ala sayyidina kaw sunu sànq bi mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xam ne taxawlu da nga doxee diyaa ci sababu julli googu bay nii sama diggante wa bay na kulli saytaanin ak diggante bépp saytaane wa kullu jinin ak bépp jinne wa kullu ma ak lépp loo xamee ne yu jaani suufuma dana xeetoon toog ñaar mooy dana niroog ñoom rek nga salmal alayhi ci ñoom tasliman ak salmal li ñeel ma bi ci barkeb salmal moo xam saytaane gu a doon rek wa a doon rek loo xam ne yu jaani suufuma dana ñaar yooyu de mu ne yàlla yàlla nga sax daaka di julli ci yonent bi ne mooy sunu sang di sunu kilifa trop mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli ci ngay doxee sama diggante ak diggante bépp seytaane ma mucc ci moom diggante bépp jinne ma mucc ci moom moo xam jinne ji gëm ak ji gëmul yëpp ak lépp lu xeetonteeg seytaane ak jinne yëpp musal ma ci ta saw bu julli googu ak salmal googu ci nga may tàggatale bépp seytaane ak bépp jinne ak lépp lu niroog ñoom di xeetontoog ñoom rek ci nga ma leen di tàggatee tàggatale ba ma mucc ci ñoom moo xam jinne ak seytaane yëpp ak képp koo xam ne dafa niroog ñoom rek ci nga may musale ci saw bu salaatu googu allahumma yow sun borom maa ngi lay ñaan sali yàlla na nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tusqilu niin ma soxlaal loo bihaa ci soobu julli googee bi wiqaayati nafsi ci may kaaraangeel sama bopp wa ahli ak samay ñooñ mina naari ci safara wasalim yàlla nga sëlmal xali ci kaw yonente bi waxala ali ak kaw ñooñ na wa sahbi ak saxaabaam ya tasliman ak sëlmal goo xamee ne taxii nii da nga ma fegale bii ci soobu sëlmal googee alxisi fii daare ni ci aduna wala yi ak gàcc ah, ba tey buñ ne alxise mooy gàcc gu adduna ah, buñ ne nag mooy ak bon xaar mooy tabbi sabara moo tax mu ne salaatan juli goo xamee ne waaw ah, taqii nii da ma fegale bii ci saabug salaatu googu alxisi ak gàcc fii daare ne adduna ka alaxira wal xaari ak gàcc ñaari yëpp gàcc lay tekki de mu yow suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy suñu sang di suñu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xam ne ci sababu julli googee ci ngay def sama yitte yëpp kaaraangel sama bopp kaaraangeel samay soxna samay doom yëpp ñu mucc ci safara loolu mooy la yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduhaa naasu wal hijaaratu ba ilaa aaxiril aaya lool nag lañ ko mën a firee rek ba ñëpp xam ko mooy lépp looy def ci lu baax nga jiitu ci ba noppi nag di ci tàggat say soxna tàggati say njabootu bopp képp koo xam ne sa moomeel rek nga di ko tàggat ndax kenn ku nekk comme sàmm la ci biir këram yaay sàmm la yonentu nee ne waaw yaay mooy nday école yi mooy umul madrasata dégg nga bu yoree ay doomam rek ca lam leen yar rek loolu ca lu ñuy màgg bu leen yoree ci saagar loolu la ñuy min bu leen yaree itam ci bëgg lu baax ci julli ci topp ndoor lu baax lépp rek ci la ñuy màgg bu leen yaree itam ci wax lu bon loolu ci la ñuy màgg kon yaay ngi noonu de mooy umul madrasata mooy école mooy nday école yëpp kon mu ngi noonu de ci la ñuy classe yi waaw guni boo tax koo gis muy saaga rek miin saaga ci yaay yi la ko déggee wala ci ay rakkam wala nangam ndax ñoom yaayam seen yay yarut leen moo tax guni gi saaga rek lay xam boo kone ne na nga def sax mu ne la nangam boo ne la na nga def sax mu ne nangam loolu yëpp ñàkk yar ci lay nekk ngir saaga yi dañ koy déggee ci seeni yaay yaruñ leen kon booy julli fajar yees ak njaboot booy julli tusubaar jiite leen booy julli tàkk looy def ci lu baax rek Ah, bu ñu amul ngant rek nga daal di leen woo ñoom ñëpp ñu yow def ko defandoor ko yow ñooñu bu yowmal xiyaamee fu dugg ci aljana rek ñu fekk la fa de waaye nag su fekkee yow papa ji da ngay julli di woor ak lépp te doo ci xital sa njaboot kooku mu ngi noonu de kooku amul benn njëriñ feegaloo sa bopp safara feegaloo ko say ñooñ de yàlla nañ ci yàlla musal te nag lu tax fe lu tax feegaloo ko sa bopp mooy fegal sa bopp mooy da ngay njëkkee sa bopp ñi nga yilif ba noppi nga di leen yilif di leen xiirtal ci julli ak jaamu yàlla ak lépp lu baax su fekkee nag dangay ngay def loolu yëpp te sa njaboot kon day mel yaa ngi lakk sa bopp ndax ñiñ la dénk mu doon sa moomil toppatoo leen de ci diina ma doon ne julli goo xam ne ci nga may soxlaa loo ci sababu julli googu may kaaraangeel sama bopp ba noppi di kaaraangeel samay ñoom samay soxnaa sama ñëpp ñi mucc ci safara ndax bu leen di tàggat ci ñuy def lu baax ci liy mucc safara yàlla maa ngi leen yàlla na nga sëlmal ci kaw yonent bi julli ci waa këram ak saxaabaam yi sëlmal ci ñoom sëlmal goo xamee ne ci sababu sëlmal googee lépp luy gàcce àdduna ko àllaaxira ci nga ma cee musalee kon ba wutul sax njaboot rek da nga am gàcce wut na yemal xiyaame yéen ñëpp ngeen bokk tàbbi safara boo leen wutoon yemal xiyaam suñu borom musal ci xis yi ak xaar yëpp musal ko ci àdduna allah ba suñu borom sal yàlla nga julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo ne tudd xulu nii ma tàbbalee bi yaa ci sababu julli googee aljannata aljana wasalim yàlla na nga salmal alay ci yonent bi salaaman salmal goo xam ne tunu jii nii da nga ma musalee bii ci sababu salmal googee mina naare ma mucc ci safara amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bi ne fi de mu ne yow sunu borom yàlla nga julli ci kaw yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di doon sunu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli googee ci nga may tàbbalee aljana tàbbale aljana dafa am lu ko jiitu kon kaaraangeel sa bopp kaaraangeel say ñooñ moo tax salaatukum indi rek day indi safaan ka waaw yàlla nga salmal ci kaw yonent bi sëlmal goo xamee ne ci sababu sëlmal go sëlmal googee ci gëmee musalee mu mucc ci lépp luy safara amin yaa rabbal alamin yàlla nga nangu ñaan yow borom bi allahumma yow sunu borom salli yàlla nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turo mooy muhammad waqini te yàlla na ma fegal bi jaay ci darja yonent bi sakaratal mawte sukkuraatum dee wa allama ak mettitam ya wa sallim yàlla nga salmal ali ci kaw yonent bi waxala ali ak kaw ñoñña wa sahbi ak saxaabaam yëpp salaaman salmal goo xamee ne tusalimun yi danga ma musalee bii ci sababu salmal googee min dammatil xabri ci tàncuk bàmmel de wasulmati ak lëndamaayuk bàmmel ba yàlla yàlla nga sax dàkk di julli ci bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa trop mooy Muhammad yàlla nag ma fegle ci darja yonent bi li ñuy wax sukuraat muy loo xam lu métti la koo xam ne dee koy dikkal waaw loolu muy sukuraat saa boo xamee ne dee dikkal na la waaw ndax dafa am lu jiitu de muy sukuraat muy méttit ga waaw mu ne loolu yëpp ci sababu salaatu googu ak ci daraja yonent bi yàlla na musalee ci sukuraat muy méttitik de waaw ak lépp loo xam ne aju na ci méttitik dee de am na ñoo xam ne bu ñuy faatu duñ yëg méttita dee duñ duñ yëg sax sukuraat suñu borom ci boppam sax mooy roccal boppam seen roogi malakul moot du ko rocci kenn du ko rocci yàlla moo koy roccil boppam rocci ko ndànk te duñ ko yëg sax ñi daal di wuju seen borom ci aljanaam ya moo tax yàlla na ma fegale ci darja yonente bi sukuraatum dee ak méttitam lépp loo xamee ne lu jiitu dee la ak gannaaw ba nga faatoo lépp lu ciy miti rek yàlla yàlla ma ko fegal ci darja yonente bi yàlla nga sëlmal ci ko yonente bi julli ci waa këram ak saabaam ya sëlmal ci ñoom sëlmal goo xamee ne danga ma musalee ci sababu sëlmal googee ci tàncuk bàmmeel ak lëndëm baayam nga de bàmmeel ku ne xam ne lëndëm na ndax pax moo xam ne pax mu xat la ñuy dugal la fa ah foofu xam nga ne bu la fa yàlla xeetlu di la fa wéttali wallahi xam nga ne lëndëm da nga fa loru te doo kenn ku lay xettali loolu mooy tàncu bàmmeel fitna ya nga fay fekk bu dee lu bon nga doon def danga ko fekk fitna ya ay jaanaki aki i lëndëm lëndëm yu xasaw yoo xamee ne ah boo ko nar a daw mu ne la jarul may daw ba ma nekkee ci àddina man maay sa jëf ya nga ma daan jëf bu dee lu baax nga doon def nag kasaalika boo duggee ci bàmmeel bàmmeel bi yaatu leer nañ ñi mel ne àddina ni mel te mooy gën a leer àddina waaw mel ne jant boo xamee ne dañ koo taal ak weer ak biddiw yoo xam ne dafa nekk ci biir bàmmeel bi ànd ko xet gu neex yàlla nañ ca bokk su ko defee nag nga ne ko a ah, yow yay kan yow mi may defal lii ah mu ne la man maay xasida ya nga doon jàng maay julli ya nga daan def may woor ya nga daan def ngir jëmmi yàlla maa ñëw tey di la wéttali foo xamee ne kenn nekku fi su ko defee yàlla musal la ci lépp luy tàncu bàmmeel ak fitnay bàmmeel allahumma yow sun borom sal yàlla nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xam ne takku fa da nga fegee di haa ci saw bu julli googee xani muulis ma jum jami mboolem la nga xamee ne dana ràppal aljasada yaram wa fil xabri ci biir bàmmeel ma wasalim yàlla nga sëlmal alee ci yonente bi tasliman sëlmal goo xamee ne tuqali bu da nga wëlbatee bii ci saabug sëlmal googe al munkara malaaka mi tudd munkar wa nakiira ak malaaka mu tudd nakiir mu basiray ne su ko defee ñi ñaari way bégal lii ñeel ma aya tafsirin bu mu ci mbégte rek dati ñi dama ko bégal ci sama biir bàmmeel ba sama biir rawda ba yaa karim yow yàlla mu di aji tedd ji ndax kat man sëñ Tuubaa maali aw ma siwaaka ku dul yow xenda taqalu bi duhóori fa wëlbatib jamono ya ndax nit ki saa bu faatoo rek mu ngi ci beneen jamono fakun nag kon yàlla na nga nekkal li ñeel ma fii ci biir rawdu ba yaa karim yow yàlla mu di aji tedd maa lii aw ma ba tey si waaka kudul yow xendaka xendaka fa ma nekkee ci feebaruk faatu kon nag fakun yàlla nga nekkal li ñeel ma xenda kulli naasilatin fa bépp aw xew-xew yoo xamee ne musiba rek la yaa karim yow yàlla mu di tedd maa lii ba tey aw ma si waaka kudul yow fii dun ya fii ci àddina wal barsaq ak barsaqa wala xarit ak àllaaxira gee ñu jëm fukun kon nag yàlla na nga doolee nekk lii ñeel ma fil jamee ci mboolem étape yooyu kama uhibu comme ni ma ko bëggee waar daa te koy gërëmee noonu amin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabal alamin yow yàlla muy borom bi defi de mu ne yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi ba noppi nag doon sunu kilifa trop mooy Muhammad julli goo xamee ni ci sababu julli googee lépp loo xamee ne buñ dugalee nit ki ci bàmmeelam day tax yaramam ràpp am na ñoo xam ne junne at ñaari junne at am na ñoo xam ne jamono yonent bi ba léegi wallahi boo gosoon seen bàmmeel yi nañ leen sule woon seen perkal ba dara soppeewut ko ca wëñ ga du dara seen jëmm ja dara soppeekuwut du xañ du def dara am na ñu yàlla jagleel loolu loolu yonent yi ci lañ bokk waaye même sax awliya yi am na ne bu leen sulee ay téeméeri sax boo leen sulee woon waaw ah, na nga woon noonu nga leen di fekkewaat duñ yàqu duñ def dara moo tax julli goo xam ne sababu julli googee ci nga fegale lépp loo xam dana rappal une heure data ñii wen quatre rek boo demoon fekk aw <laughs> tabaarkalla kenn du leen mën a xool yala yàlla nga sëlmal ci kaw yonent bi sëlmal goo xamee ne ci sababu sëlmal googee malaaka mi nga xam ne moo tudd Munkar ak Nakiir nga xam ne képp koo xam ne duggoon nañ la ci biir bàmmeel bu nit ñi siqee seenu jeeku di dellu seeni kër ya su ko defee ñooy yegg si nag commencé nag di la laaj waaw lan mooy sa diina lan mooy sa kan mooy sa yonentu lenn lekk ñi laaj la ko de ci ndigalu borom moo tax woon ci sababu julli googu ci ngay wëlbatee jëmi munkar ak nakiir nga xam ne bu nit ñi sulee ci bàmmeel bi ba dellu ñoom bu ñëwee dañ may bégal duñ ma laaj dara su ko defee nag ñaari way bégal lañ ma bu mu ci mbégte rek ci sama biir rawdu ba sama biir bàmmeel ba ndax yow yàlla dee aw ma kurut yow saa boo xamee ne faat nga ma ma dugaat ci benen jamono kon nag yàlla nag ma nekkal ci biir rawdu ba yow mi nga xam ne yaa aji tedd ñi ndax aw ma kurut yow bu ma nekkee ci méttitug dee feebaru faatu ba yëg ne man mii sama rôle yi tey mu taxu sama jëm ju ma bàyyi jamono jii jëmaat ci beneen xaal kon nag ma nekkal foofee waaye yàlla nag ma nekkal ci bépp xew-xew boo xamee ne mën naa doon musiba ah yàlla na ma fay nekkal ndax yow kat ku tedd nga aw ma ku dul yow fii ci rek laa fi am barsàq yow rek laa fi am alaxira yow rek laa fi am kon nag yow rek laa fi am ci ñetti jaaruwaay yëpp étape yooyu yëpp maa ngi lay ñaan nga nekkal ma fi di ma bégal ba du ma fa gis lenn lu may ko bëggee nag ma koy bégalee comme ni ma ko gërëmee noonu nga ma koy defalee yàlla nga allahuma yow sunu borom maa ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi o mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tubasiruna da nga ñu bégalee biyaa ci sababu julli googee fii kulli xawlin ci bépp tiitaange min ahwaali dunya gu bokk ci tiitaange aduna yi wala xariti wala yu alaxira yi wal barsaqi wala yu barsaqi yi amin yàlla nga nangu ñaan yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga sax dàkk di julli ci bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy muhammad julli goo xamee ne ci sababu julli googee lépp luy tiitaange moo xam tiitaange yu bokk ci tiitaange adduna yi ak yu àllaaxira yëpp ci julli googu ci nga ñu cee bégalee ba duñ tiit ci adduna duñ tiit ëllëg yamal xam waaye duñ tiit itam mukk tiitaange yi nekk fa tiit yàlla nga dangu ñaan allahuma yow suñu borom sali yàlla nga julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi oma wala naa tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tajxalu da nga defee biyaa lépp loo xamee ne an naa lu amoon naa ko bii day ci li nga ne aaw bi day ci li nga xam ne mooy ñaari loxom ya warta xaalu ni te yàlla nag ma defee biyaa ci sababu julli googe min ahabi naasi ma bokk ci gën kaa soppi ci nit ñi ilahi jëm ca moom de waaye ba tey ci nga may defee wa min akramil xudaami ba bokk ci gën caa tedd ci ñi nga xamee ne ñoo koy liggéey la day fa moom de wasalib yàlla nga salma alay ci moom tasliman salmal goo xamee ne tusalimu ni dang ma musalee bii ci sababu salmal googe min kulli maa yaxonqu ni ci lépp lu may gàllankoor ak lii ci li nga xamee ne moo di lekk suru bihi wala ak naan aw lubsi wala ak colinde mu ne yow yàlla maa ngi la ñaan yàlla nga julli ci kaw yonent nga xam ne sunu sang du sunu kilifa trop mooy Muhammad julli goo xamee ne ci saw julli googee ci ngay loo xam ne may nga ma ko mu jaar ci ñaari loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ana loo lépp loo xam ne may nga ma ko mooy am naa ko rek nga maye ma bi yeddi mu jaar ci ñaari loxo yonent bi ci saw bu salaatu googu lépp loo ne may nga ma ko waaw ci nga koy defee mu jaar ci ñaari loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci saw bu salaatu googu ci nga may defee ma bokk ci gën kaa jëm ca moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne nit ñëpp ci sababu salaat googu ngay defee ma gën a sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye itam ci sababu salaat googu ci ngay defee mboolem xuddaam yiy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma gën cay tedd yàlla nga sëlmal ci kaw yonent bi sëlmal goo xamee ci sababu sëlmal googee lépp loo xamee ne mën na maa gàllankoor lu demee ni ci sama lekk wala naan wala sama colin mën na maa gàllankoor ba dox sama digganteeg yow yàlla musal ma ca ndax léeg-léeg nit ki lekk wala naan wala sol yépp te bu ñaanee yàlla fekk suñu borom mere na ko bu yàgg yonent bi na ko ci bara na ku talal loxoom naan yàlla may ma may ma may te boo ko xoolee la lekk dafa xaraam la muy naan dafa xaraam la muy sol sax dafa xaraam ndeke léeg-léeg nit dana sol mbubu rek su moomut wala di ñaan yàlla yàlla na ko maa lànk si si mil mbubu si jàmbur si nga dam delloo ko ko. moo tax ma ne ci sababu salmal googu ci nga may musalee ci lépp loo xam ne dana ma gàllankoor lu mel ni lekk ah ci sama lekk wala naan wala ak lënt léeg-léeg nit ki lekkam lënt waaw ah, lu mel ni naanam lënt. wala colinam lënt ndax lenn lu ci dagan amut de moo tax mu ne ci saw bu salmal ko ci ngay musule min ku limaa yoxunu ci lépp loo xam ne daf may gàllankoor ak li ak ci li nga xam ne moo di lekkam sur bi ak naanam aw lub si wala ak colinam waaw lépp loo xam ne daal sama colin la wala naan wala ak lekk loo xam ne daf daa tax man maa gàllankoor sama diggante indil ma ay jafe-jafe rek musal ma ci saw bu salmal googee allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi ba ma wala tey sunu kilifa muhammadin turam mooy salaatan julli goo xamee ne takk fu nii dang ma fegalee saw ci sababu julli googee an kulli fudolin walis lépp loo xam ne waxi bebbantu la wa kulli baatilin ak bépp neen wasalim yàlla nga salmal alay ci yonent bi tasliman salmal goo xamee ne takk nii dang ma fegalee bii ci sababu salmal googee kulla maradin bépp tawat wa kulla xaayiqin ak bépp aji gàllankoor fii saahiri moo xam ci lu feeñ wala baatin ak ci lu nëbbu de yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi du sunu kilifa turam mooy Muhammad julli goo xam ne ci sababu julli googe ci nga may fegele lépp loo xam ne wax joo xam ne waxi bebantu la muy waxi caaxaan wax joo xamee ne boo déggee fuddool waxoon naa la mooy wax joo xamee ne ah mën naa bañ a jural borom bàkkaar waaye du ci am tiyaaba waaye ci sababu salaat googu ci nga may musalee ci lépp luy neen mooy lu wuteeg dëgg yàlla yàlla na nga sëlmal aaw ci yonent bi salaay salaam sëlmal goo xamee ne ci sababu sëlmal googee lépp loo xam ne xeeti tawat la moo xam tawtu jëmm ak tawtu xol mën naa gàllankoor nit ki diggante mi ak borom moo xam la la koy gàllankoor ci baatinam lay nekk wala saahiram yëpp musal ma ci sababu salaatu goog de. allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tuwasilu ni danga ma eggalee bi ca sababu jala salaatu googu ilayka jëmee ma ci yow bii ci barke bi yonent bi xataa akoona ba danaa nekk misla asaabi ba mel ni ki saxaabaam ya fii ma bokk ca ña nga xamee ne Ah, lam yuxtasoo bihi mooy ñi nga xam ne ñoom la gën a jagoo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sangu bi du sunu kilifa turam mooy Muhammad waaye julli goo xamee ne ci soobu julli googee ci nga maa yeggalee jëmee ma ci yow waaye ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne danaa mel ni saxaabaam ya ña nga xamee ne yonent bi ah dañoo ay tànneef la ñuy jege yonent bi sallallahu alayhi jegoo ko ku mel ni Abubakrin ca la bokk Omar ak Ousmane ak Ali ku mel ni ahlul xasarata al mubasara bil janna boo ci tànnee ba tey waa ahlu badar ñoo gën a jagoo yonent bi sallallahu wa sallam moo tax mu ne allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi sallallahu alayhi wa sallam wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad yàlla yàlla nga julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam mooy muhammad salaatan julli goo xamee ne tuwasilu nii da nga eggalee bi ci sababu julli googu ilayka jëmee ma ci yow bi ci darja yonent bi xataa ak koona nga xam ne su ko defee man sëñ Tuubaa danaa nekk mis la asaabi ba mel ni saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñëpp yegg nañ ci yàlla te ñi nga yeggee ci barkeb yonent bi bokk ca biit ña ne lam yuxtasoo jagoo nañ bi ci yonent bi sallallahu alayhi ñi a jege yonent bi nga xam ne dañoo am jagle ci yonent bi sallallahu ma boole ci biir ñooñee gannaaw ba nga xamee ne ci sababu salaatu gi ci nga ma yeggalee ma yegg fa yow ci barke bi yonent bi su ko mel ni saaba mi bokk nga xamee ne ñoo gën a jagoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nit yàlla na ko yàlla defal sunu borom dugul ni ci ñi nga xam ne ñooy ñi gën a jagoo sëriñ bi ci waxtu wu ci liggéeyal ko de